ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci santam yéen waa Sénégal di waxtaan ak mbooloo mi tey communicateur yëpp yi nga xamante ni ñoo nekk Thiès ak doomu ñeeño yëpp ak doomu géwél yëpp yi nga xamante ne ay jeunes lañu mag ak ndaw jigéen ak góor tey ñoo booloo dajaloo ñëw fii ci promenade Thiès waa di réclamer seen i doléance yi nga xamante ni moom la ñu am di bëgg a wax ak président Macky Sall mi nga xamante ni mooy le président de tous les Sénégalais bi mbas mi amee ba nëgë ni géwél yëpp ak communicateur yëpp ñu ngi toog di ko déglu ba mu ne bàyyi leen bu kenn dem bu kenn dikk ñëpp toog nañu kenn ku ne toog sa kër kenn demul kenn dikkul ñëpp a ngi toog seen i kër kenn demul ngénte kenn demul dëj kenn demul ceet kenn demul manifestation kenn demul mitin kenn demul fenn ñoo ngi toog jàpp suñu ngor jàpp suñu diine toog gëm li président Macky Sall wax xam ni feebar bi am na ñu toog jàpp suñu mor sa njàmbur léegi nag yàlla def na mbir mi trois mois ngi nii di toog te nag boobu ba léegi demuñu fenn ñoo ngi toog mbooleem lu nu yoroon rek bu doon lu nu denc joxe nañ ko bu doon lu nu am joxe nañ ko léegi nag danoo bëgg président Macky Sall ak ministre am bi nga xam mooy ministre de la culture mu jàppale ñu mu jàppale ñu jàppale doomi njeeño yi nekk Thiès yëpp ak doomi communicateurs yi nekk Thiès ñoo booloo nii bëgg président Macky Sall jàppale leen ndax ci mbir mi la nu bokk boobu ba léegi demuñu fenn dëkkuñu ñoo ngi toog plus particulièrement doomu Thiès yi nga xam ni Thiès lañ dëkk te yàlla jox leen ay teraanga ñu nekk ci dëkk bi ku ci mel ni Ablaye Diop ancien ministre des finance ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàppale communicateur dëkk bi ku ci mel ni Baara Taal ñu ngi koy woo jàppale doomu dëkk bi ku ci mel ni Mbaye Gueye EMG ñu ngi koy woo jàppale doomu dëkk bi ku ci mel ni ku ci mel ni ki yoro mata jakataay Clédor Clédor Sall ñu ngi koy woo moom mu ñëw pour jàppale communicateurs yi ndaxte kat communicateurs yi ñu jar a jàppale lañu géwél ñu jar a jàppale lañu ndax lu fi siiw ñoo ko siiwal ba ci mbir mii feebar bi fu nu dem wax ni am na def déclaration bu wóor di woo maison communautaire pour mu ñëw jàppale ñu waa maison communautaire di woo baaba jaw pour mu ñëw jàppale ñu di woo tous les responsables politiques ndax bu nu limee nan naan lim nañu kii bàyyi kee ni kii la lim bàyyi kële responsable politique yëpp lanu bëgg ñu ñëw jàppale ñu ndax communicateurs yi ak géwél yi ak ñeeño yi vraiment sonn nanu sonn nanu li ñu yoroon dépensé nañ ko ba mu jeex tak nañ ñëw jàppale ñu amuñu ku dul ñoom ñoom la ñu am ñoo ñëw jàppale lii moo doonoon kàddu gi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam du jaaratul kàddu gi di gudd yaakaar naa ne bu doon lu ni yëgle yaakaar naa ni yëg nañ ko waaye di ci wax tuuti rek ci ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy communicateur religieux yi nga xam ni comme ni ko ñii wax bàyyee ñoom it noonu lañ def kenn ku ne xam na ni jàng yi ak yi nga xam ni ñooy takk yi ak yi nga xamante ni bii ñooy manifestation religieuse yi si la ñu daan dox te kenn ku ne xam na ni président dafa tere loolu boobu ba léegi ñu toog kon daal monsieur le président kon nii la ko ñëpp waxee noonu rek la demee ñun waa cees ñun ñoo bokk mooy ñi nga xamante ne bii mboolem kuy yégle mbaa kuy tëgg mbaa kuy woy mbaa kuy wax mbaa ku mën a doon ñoo bokk mànkoo doon benn say ànd bokk ndey bokk baay am ñu ñu jiite am ñun ci teg ñu boolonte jàppalante bëggante kon nag ñu ngi woo képp koo xamante ni bii doomi dëkk bi nga jëruñu leen di lim ndax kenn ku ne xam na turam da ku lim doo juum da dul matal te bëgg ñoo tudd kenn di bàyyi kenn loolu moo tax ñi nga xamante ñoo dëkk ci dëkk bi buñ leen tuddul lool moo ko waral waaye xam nañu ni suñu diggante ak yéen kenn ku ne xam nañu li ci war ci suñu diggante ak yéen yéen nga koy def moo tax jërul tudd ndax man ngaa woy nit doo tudd turam mu xam boppam ñu dëkk Thiès buñ leen tuddee xam nañ seen bopp buñ leen tuddul xam nañ seen bopp ndax ñu nag ñoom ñoo dëkk waaye lii nag te jii nag dañ koo jël jagleel ko président Macky Sall de la République président ki nga xamante ne bii ak soxnaam su baax si Adjaratou Marème Faye Sall ak ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ko àndal ñëpp kon nag duñu sori ci kaddu gi dana jël kaddu gi jox le président ki nga xamante ne bii mooy Modou njaay Diop mu wax ci turu président kon nag Modou vous avez la parole sunu taxawaay bi yal na ko yàlla saafara ndax nag monsieur le président yow la ñuy waxal yow yaa tax ñu ñëw poos yi vide na saaku ceeb yi jeex na diwlin yi jeex na lépp jeex na yaa nu woon ñu toog ñu dégg sa ndigal toog amatuñu lenn nag dematuñu fenn amuñu leen lu ñu xew am ceet am ngénte ak i takk moom la nu am tubaarkaal di ca dem di ca faj suñu soxla ndax mënuñu bis bu ñu tàllal suñu loxo ni jox leen ñu waaye ginnaaw toogloo ngeen ñu ba ñu toog ba mu mat ñetti weer danoo bëgg nag euh, président de la république na nga gestu nag gestu say géwél gestu say ñeeño gestu say rak gestu say frère gestu say sœur ñu ngi nii toog amuñu fenn fu nu mën a dem ni tàllal loxo jomb nañu ko waaye comme nag tu la le président de la république de tous les sénégalais ñu ngi lay ñaan ñun président nga jàpp sa nga jàppale ñu te ne yàlla rekk tax waa jàppale say géwal jàppale waa Thiès jàppale communicatrice si jàppale communicateur yi ay xale yu ndaw rekk fi ne sàcci wunu fene wunu mboye yàlla lu dul liggéey rek daan seen doon dimbali seen i jaboot kon nag président jàpp ci ñuy woo nag sama yaay Aminata Mbengue Ndiaye Aminata Mbengue Xaali ñu ngi ñaan nga ñëw jàppal ci ak ajatu Mimi Touré yaayu daara ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàpp ci loolu rek la ñu amoon ci li ñu koy wax léegi nag tubaarkàlla maa ngi passé la parole waa di ñaan nag Ajaratu Marème Faye Sall Lam Tooro nga ñëw jàppale say jigéen jàppale say sœur jàppale say frère tubaarkàlla jàppale communicateurs yi nekk Thiès am communicatrices yi nekk da bu ngeen ñëwee Thiès ñun ñoo leen gàttandu première dame bu ngeen ñëwee Thiès ñun ñoo leen di gàttandu ñun ñooy wax yu baax yi ñun ñooy wax yi rafet yi ah kon nag gestu leen ñu nag demoonu fenn ñu ngi toog te am nu ay njaboot am na nañu ay soxlan am na lu warul lijjanti tubaarkàlla ñu ngi leen di ñaan bu baax. Hmm? asalaamaaleykum mbooloo mi ñi ngi santaat ñëpp bu baax a baax tey gis ngeen uh, li nga xamante ne moo am fii ci Thiès ci promenade des Thiessois mbooleem kuy communicateur mbooleem kuy doomu ñeeño rek ñëw nga dégg ngeen kàddu yu rafet yi ñu wax man nag uh, ci sama jëmm ju tuuti ñu ñu jiital ma ci su leen seen lépp. may interpeller nag ki nga xamante ne mooy le gardien de la constitution le président de tous les sénégalais le président Macky Sall ah gis nañ taxawaayam bu baax bi mbënd mi ak ak mbas mi amee ba léegi waaye taxawaay bi lépp rafet na ñun nag communicateurs yi du ñu mën lu dul luy doxal réew mi ak lu koy jëmale kanam ñu ànd ci moom moo tax bi nga xamante ne tere yi ñëw na ñu topp ca loola amatul benn manifestation bu ñu dem tey nag géwél yi ak communicateur yi xew-xew la ñu am ak seeni i géew ca la ñuy jëlee lu ci bari li nga xamante ni fa la ñuy suturloo waaye nag bi mbas mi amee léegi gis nañ ne sunu ministre de la culture nga xamante ni ñun ñii ñëpp ci moom lañu ñu dépendre nam ñu war a taxawoo ah egseegul ci ñun ñuy interpeller président di ko ñaan communicateurs yaa ngi xam nañ fu mu teg Thiès xam nañ ni mu fonke géwél xam nañ ni mu fonke communicateur mu jàppalewaat leen nag ndax nag ñu mën a amul loo xam da ko suturloo amul kenn ci ñoom koo xamante ni fii bind nañ la ci mi nga xamante ni mooy affaire kit yi ñu war a joxe ñoo ngi toog ñoom ñëpp asàlloog seen ngor président nag li mu ne woon mbooleem koo xam ne yëf yi impacté na la danañu wax ak sa ministère ñu xool lu la ciy jàppale ñun nag ñi ngi xaar ah ki nga xamante ne day ji seex la njaaxaana di tëdd muy madame Marème Faye Sall ci nga xamante ne mooy yërmandeem ak suturaam gi xam am na ko ngir yéene ko sénégalais yëpp ñi ngi xaar daal Thiès daal ñëpp ngi taxaw di waat ci président mu jàppale communicateurs yi jàppale doomu géewal yi ngir ci bas mi nag sonn nañ torop ngeen baal ñu ak ko salaam bonjour tout le monde je voudrais saluer la présence de les communicateurs qui sont là présents les communicateurs et les Aujourd'hui, on est là à la promenade des Thiessois pour interpeller le gardien de la Constitution, le président de la République, M. Macky Sall. Depuis le début de cette euh, Covid-19 qui a envahi le pays, donc le président avait ordonné euh, euh, des interdits et des recommandations pour éviter l'épanouissement de, de, cette maladie. Donc on a bien respecté ces décisions venant du ministère de la Santé et du ministère des Transports. Les, les griots se sont confinés. Ils ne sont pas sortis. Il n'y avait pas de manifestation, ni de, ni de baptême, ni de cérémonie euh, euh, euh, euh, heureux, comme on a, comme on a l'habitude de le fréquenter dans les cérémonies pour gagner quelque chose de quoi se servir à la maison et de régler nos problèmes. Donc, euh, nos poches sont vides. Mm. Les communicateurs sont inquiets. Raison pour laquelle nous interpellons le président de la République, M. Macky Sall, pour qu'il nous vienne en aide, aider les communicateurs, aider les griots qui ne veulent pas du tout euh, euh, branler cette décision de rester chez vous, de nous et de régler les règles. Nous interpellons en même temps le ministre de la Culture. Moi, particulièrement, je vous dis, je ne connais pas le ministre de la Culture. Aucun des communicateurs qui sont là ne connaissent le ministre de la Culture. Nous ne le connaissons pas. Il n'est jamais venu à Thiès rencontrer les communicateurs. Je ne l'ai jamais vu dans une manifestation qui s'est passée à Thiès. Donc nous sommes impactés par cette covid Il a le droit de nous venir en aide parce que nous, nous nous référons au ministère de la Culture et nous faisons partie, nous sommes une partie du ministère de la Culture. Le ministre de la Culture doit venir en aide. Nous vous remercions tous. Merci beaucoup.